rahmatullahi taala ak dégloo dégloo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jataayub Serigne Touba bi tey ñu koy ñaanal sunu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool te mu ànd ak wér te sàmm ko ba mu àggale mboolem ay naalam ci kàddu yi jëlee ci sëriñ bi. lii daal di koy jox sëriñ seex Jëmb Fall. teg ko ci loxoom. te fekkoon na la ko jëkk. nega ni daaw. nega woon ñetti hôpital. tàmbali woon nañ ñetti hôpital. ñetti poste de santé. ci ndigalul ki fi nekkaloon Serigne Touba di Cheikh Sidy Mokhtar. yàlla sunu borom dolli ay leeram. te taas ñu ci barkeem. mu joxoon ndigal moom Cheikh Mouhamadul Mountakha mii. mu joxoon ko ndigal moom Cheikh Mouhamadul Mountakha mii. mu ñëw teg si xeer. mu ñëw teg si xeer wa. kon loolu ay jëf yu rëy la. kon loolu ay jëf yu rëy la. ba ci seen jëfi tey jii nag. ba ci nag suñu jëfi tey jii. muy jëf joo xam ne. muy jëf joo xam ne. moom itam jëf ju rëy la. moom itam jëf ju rëy la. te dëkk bi soxla na te dëkk bi nag soxla na ko lool muy ñaari camion muy ñaari camion yu sapeur pompier yu sapeur pompier yoo xam ne yoo xam ne ñoom néewoon nañ ci doole ngeen ñëw jébbal ko sëriñ bi sëriñ bi fas leen ko yéenee joxaat ak ambulance bu ànd ak poste de santé ba boolewaat ci ñaari oto yoo xam ne daayira Safinatul Amaan bi bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké moo ko joxoon sëñ Modou Lo Ngabou teg ko ci loxoom mu di ca liggéey moom itam ci pëstéefam ak jomam bi ñu ko waxee sëriñ bi léegi bi ñu ko waxee sëriñ bi léegi ne ko nag. dañ la koy jëbbal. dañ la koy jëbbal. yaay seet nag noo koy def. yaay seet nag koy def. sëriñ bi wax leen na. wax leen na lépp lu ngeen ci man rek. lépp def leen ko def leen ko. ndax man mii ndax man mii kat. bi ma fi toogee di sëriñ Touba. bi ma fi toogee di sëriñ Touba. ñaari oto yi ñu a ma jëkk a jox. benn bi benn bi waa Safinatul Amaan laa ko jox. ngir ngir xam seen ngir xam seenu liggéey. kon nag sëriñ Muntaxa la ñu jàppale ci liggéey bi. kon lii ñu def lépp sëriñ bi sant na ci. sëriñ bi bu baax. lii sëriñ bi wax itam. lii sëriñ abi bu wax wax na naa ko wax sëriñ bi. wax na na ko wax sëriñ bi. nee ko lépp rek na ko fa ñu fa. fu ne nañ fa yem fa la ñu yem. ne lu mu def ko ñu def ko. lu mu ko koy jàllale. sëriñ bi li mu leen wax déggal ngeen ko seen bopp. te sëriñ li mu wax déggal nañ ko suñu bopp yàlla si biir Mbacké. nee na moom Serigne Mountakha ci biir daayira Nour Daara la bokk. wax na yaakaar ji mu am ci mbooloo mi. kon jox na ndigal taalibe bu ko man loo man ci Touba ca kanam nga jëf ko. Serigne Mountakha ko wax ci làmmiñ ndax jëf ju àgg ci sëñ Touba la. kon. dara génn ci dëkk bi. yal na ko sunu borom mottali. yal na nu ci sëñ Tuubaa defal ndimbalam. ba mu àgg fa mu jëm. ndax lu sagu la ci biir yoon wi. ndax lii sëriñ Abibu wax. sëriñ Tuubaa foofu la newoon. sëriñ Tuubaa foofu rek la newoon. katam ci suñu dox كتبت في البحر أني لا أمر بيدي أني لا أمر بيدي إلى النصارى إلى النصارى عبيد الماء والتين عبيد الماء والتين ndagam نعم، فوق لك ko waxoon نك فوق foofee la ko waxe woon mosu caa jóg وحنا caa jóg wax مد يدي مد يدي لغيره لخيره هندي جنون هندي جنون وقال لي خير الحلال خير الحلال والفنون أنا فنان فنوحني وحني أنا فنان فم maddu yadi. maddu yadi. wax na fu bëree wax na fu bëree bari bëri. na tàllal sama loxo. na tàllal sama loxo. kudul yàlla. da ko jaay. da koo jaayante du ko def mukk. bokk na ci lim jaayante. bokk na ci lim jaayante. ci diggam ak boroomam. ci diggam ak boroomam. kon nag li ci des nag. kon nag li ci des nag. mooy lii sëñ abi bu fàttali. mooy lii sëñ abi bu fàttali. ci sunu diggante ak ci sunu diggante ak Serigne Touba. suñu diggante ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. ak suñu diggante ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. ak ku fi nekkal Sëñ Tuubaa. ak ku fi mën a nekkal Sëñ Tuubaa. ndax dafa wax ne. ndax dafa wax ne. war nañoo bàyyi xel bu baax. war nañoo bàyyi xel bu baax. ci ni ñuy àndee ak ci ni ñuy àndee ak Serigne Touba. Serigne bi Serigne bi moo ko Abi bu moo ko wax. ndax nee na Serigne bi. ndax nee na Serigne bi. dafa wàcce boppam. dafa wàcce boppam. suufeel boppam. suufeel boppam. loolu kenn waru ko caa fekk. tegaat ca wax ne. tegaat ca wax ne. Serigne Touba war nekk ci bu nekk. Serigne Touba war nekk ci am néeg. ñu yëngali bunt. ñu yëngali bunt. ak i loxo ak i loolu kon dafa fàttali rek. dafa fàttali rek. la rasul la suñu borom digaloon saxaaba yi. la suñu borom digaloon ci alxuraan saxaaba yi. laa tarfaxu aswaatakum. laa tarfaxu aswaatakum. fawqa sawti nabi. fawqa sawti nabi. wala tajharu lahu. wala tajharu lahu. bil qawli. bil qawli. ka jahri ba'dikum. li ba'din. li ba'din. an ta'bata ahmaalukum. an ta'bata ahmaalukum. wa antum laa tash'uruun. inna allaziina yaxuduuna. inna allaziina yaxuduuna. aswaatahum inda rasulillahi. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الذين ينالون من ورائهم ولو أنهم صبروا حتى تخرجوا إليهم حتى تخرجوا إليهم لكان خيرا لهم nee na موي mooy ñiy yëngal ay loxo ndax buñ mënoon xaar la leen si suñu borom defal ma la suñ suñu borom defal ma gën lool. noonu la maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem Cheikh si. ànde woon ak sëñ Touba. Cheikh Issa Dieng. Cheikh Issa Dieng. ba ko Serigne Touba sant liggéey ca ko Serigne Touba santee ca liggéey ba ca Njaareem. dégg ngeen jaayante bi mu jaayante woon ñëpp maase nañ dégg jaayante gam jaayante woon wax ko. ci diggam ak sëriñ bi. bu sooroor yi taxaw. ci bu sooroor yi taxaw. sëñ Massamba Diop Samb. sëñ Massamba Diop Samb. loolu la waxoon sëriñ bi. loolu la waxoon sëriñ bi. sëriñ bi da koo waxoon na ko. Massamba. Massamba. mu ne ko Mbacke. mu ne ko Mbacke. mu ne ko baa xam nga ne Dame Sall mu ne ko baa xam nga ne man nii ak Dame Sall la. mooy dencukaay. mooy dencukaay bu mag. mu ne ko kon de ma fas yéene doon lantinoon. man ma fas yéene doon ak lantinoon. mu ne kon mu ne lool de képp koo def. mu ne ko loolu de képp koo ci def. bu ñu àggee ba fa nga xam ne kenn mënu faa amul àggee fa nga xam ne kenn mënu faa amul jiw. ma yëkkati sa jëf jëf jëf ma yëkkati sa jëf jëf mu ngi nii. ma nag kon nag. seen daayira bi yéen. suñ daayira bi ñun. li tax sëriñ bi xelam dal ci. bi xelam dal mooy dafa tàmbalee ci sëñ Tuubaa. mooy daa tàmbalee ci sëñ Tuubaa. yem ci sëñ Tuubaa rek. ndax nii sëñ bi waxee. ndax nii sëñ Abib waxee. ñun ñi ko xam. ñun ñi ko la ne loolu la ñu. mbokk yi mu ko àndal di ay ay ay naaw la itam. mbokk yi mu tax xelum taalib yëpp. ndax sëñ Tuubaa waxoon na ne. alali doom lañu. alali doom lañu. dee leen seet fi ngeen koy jëlee. dee leen seet fi ngeen koy jëlee. ndax nit fu fu alalam jëm. ndax kat nit fu alalam jëm. xolam jëm. xolam jëm fa. kon nag. bu fa ko li taalibe yi nangoo. bu ko xoli taalibe yi nangoo rek. sëñ Tuubaa da koo nangu. yàlla yàgg kon nag yàlla yàgg ñu ngi siyaare sëñ Cheikh ñu ngi siyaare sëñ Cheikh moom sëñ Mahamadou Diop mi nga xam ne agsi na fi léegi ci jotaay bi da cee bokk sax moom da cee bokk waaw nee na moo ko yëgaloon nee na moo ko yëgaloon kon nag ñu ngi ñaan ni ñu ko defee ñun kon nag ñu ngi ñaan ni ñu ko defee ñun ñu yéene defaat feeg déwén ñu yéene koo defaat feeg déwén yàlla nekk asaka lii ñu def kii ji yàlla asaka yi doon bu déwén te nee na rafet nañ ci jot bu baax ndax xam nañ ne mbirum sëñ bi. sëñ Tuubaa moom. lépp lu mu nangu. lépp lu mu nangu. ci xol taalibe bi nga xam ne. Serigne Saliou daa wax ne. fu xoli taalibe yi jëm. fu xoli taalibe yi jëm rek. fa la bëgg sëñ Tuubaa jëm loolu kon dal nañ ci xel bu baax. ñu jeexale foofu kàddu yi. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf. borom kër gi war na koo xam. baaxee war na koo xam. baaxee xale bi war na koo xam. moo tax moo tax. ñu jébbal ak sëriñ bi. ñu jébbal ak sëriñ bi. sëriñ bi joxaat la. sëriñ bi nag joxal ko waa Sapeur Pompier. kon nag yéen ñu ko teg seen kon nag yéen ñu ko teg seen loxo seen moo fekk. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. ngeen xam ne. da a fekk ci seen liggéey. da leen a fekk ci seen liggéey. lu leen war la. xam nga lu leen war la. loolu mu dimbali leen. mu dimbali leen tey. loolu na. loolu nag sëñ xam nañ la. ñëpp xam nañ ni. di xaalis France a daanu. di xaalis bi bari. ba loolu leen ci loolu. yi ñu daan am itam. xeet yi ñu daan am itam. ku leen ci archive moom fekk. saa su ma saa la si. saa su ma saa si. sëriñ bi rek jooju. sëriñ bi day leen si daan dindi. kon loolu yàgg na ci yoon bi. kon loolu yàgg na ci yoon bi. maam Cheikh Anta. maam Cheikh Anta. xam ngeen ni. xam ngeen ni. ñoom dajee leen jamono. ñoom dajee leen jamono. muy beres. muy beres. moom maam Cheikh bi ñoo leen jàppale. moom maam Cheikh bi ñoo leen jàppale. Cheikh Cheikh. kon ñoom mosu ñoo toog di xaar kenn. kon ñoom mosu ñoo toog di xaar kenn. الشيخ الشيخ محمود مصطفى الشيخ محمود مصطفى مويت الله كلهم مويت الله كلهم انا لم لا يكد لي انا لم لا يكد لي كل لي الشيخ محمود الفاضل الشيخ محمود الفاضل سوار بمنيو تيمو سوار بمنيو تيمو دا يكد على الجحر دا كو يكد على الجحر بري فاتا بري فاتا كون دي ديم سي ديم دي leen ci soññu. kon sëñ bi leen ci soññu. ñu aar ko. ñu aar ko. sàmm ko sàmm ko. xam posté bu ñu ko joxe. ci am posté bu ñu ko joxe. ndax xam posté bu ñu ko joxe. ndax xam ndax xam posté bu ñu ko joxe. ndax yaara fi nekk. ndax yaara fi nekk. addiya. addiya. ak ak ak ak li ñu tuddee garab. ak li ñu tuddee garab. mooy impôt. mooy impôt. tubaab bi nga mën a wax sëñ bi wàll. ñun de am nañu jàpp. ñun de am nañu jàpp. ndax impôt bi ñu laaj bi. ndax impôt bi ñu laaj bi. lu néew bopp bu ne bopp bu ne ëpp juróomi dërëm ëpp juróomi dërëm danañ ci sonn lool danañ ci sonn lool te nit ñi gën a bon te nit ñi sax ñu gën a bon yow nga laaj loolu ñaar yow nga laaj loolu ñaar sa juróomi nit ñi forcé bi la ko nit ñi forcé seen bopp bi la ko ba dina ko pour dina ko jënd ba dina ko jënd loolu la jaaxle loolu la jaaxle sëñ bi nga sëñ bi nga dafa bokk dafa bokk ndax yéen ñi ngeen ñi ngeen di laaj ndax yéen kat lii laaj leen ko ngir yàlla. laaj leen ko ngir yàlla. ñoom joxuñ leen ko ngir yàlla. ñoom joxuñ leen ko. jëfal leen rek ci yàlla. man nag li ma leen di laaj. man nag li ma leen di laaj. laaj leen ko ngir sama laaj ma leen ko ngir sama dama leen ko laaj ngir yàlla. dama leen ko laaj ngir yàlla. ñu dina ko jox ngir yàlla. ma di ko def ngir yàlla. ma di ko def ngir yàlla. kon loolu mooy. kon loolu mooy. loolu mooy loolu mooy suñu. loolu daal mooy mooy suñu yàlla. ndax sama dëgg sëñ Saliou boo xam. ndax sama dëgg sëñ Saliou boo xam. bi sëriñ bi ñëwee ñëwee jaaree. bi sëriñ bi ñëwee jaaree. te jëlaale ñoom jëlee woon mos a am leen. te jëlaale ñoom jëlee woon mos a am leen. boo demee ci mos a am leen. te boo demee ci mos a am leen. sëriñ bi koy wax ne wa tibtu nafsan sëriñ baa koy wax ne wa tibtu nafsan واشتريت عسير واشتريت عسير رقبة رقبة تنفعني تنفعني في كل حين في كل حين loolu mooy loolu mooy li sëriñ Tuubaa jëndoon li sëriñ Tuubaa jëndoon gorel la gorel la Tuubaa yi tax ci Tuubaa yi tax ci Tuubaa yi tax ci Tuubaa yi tax ci gis ay ñëw si ak tàngooru mu tàngooru tàngooru na ko dina tuumaal dina tuumaal ci loo xam ne ci njort lañ ko teg ci loo xam ne ci njort lañ ko teg tey nag dañoo am firnde tey nag dañoo am firnde preuve yu leer lañ am preuve yu leer lañu am ndax ñii nga def ndax ñii nga def lu waa da koo teg lu waa da koo teg mooy jaam yi ngay mi mooy jaam yi nga indi jënd leen leen jënd leen andi leen kon loolu ay daan yu rëy loolu kat nag ay daan yu rëy lañ ci war a teg lañ ci war a teg sëriñ sëriñ bi ne leen sëriñ bi ne leen ñii may ñii ñii ngeen wax de ñii ngeen wax de fa ma leen jëlee. fa ma leen jëlee. seenu tere àggu ko. seenu tere àggu ko. muy mursal. muy mursal. bu ma leen indee fii itam. bi ma leen indee fii itam. goreel leen tax. goreel leen tax. tubaab bi ne teg. tubaab bi ne teg. président bi mën na ko li nga wax ne dëgg bi ba mu yàgg mu ne Serigne Touba li nga wax ñëpp defoon na yow. yow de bu ñëpp defoon na yow. ak njaam jeex ci àdduna ak njaam jeex ci àdduna sëñ Tuubaa ne ko man lu may doy jàmm sëñ Tuubaa ne man lu may doy jàmm ku gor yi nangoo doon doon sa jàmm doy wute sa jàmm Alle